ha ahlan bikum yàq gu métti pasar pasaree xalalu askan wi nga xamante ne fañ koy def ci jënd ay jumtuwaay jox ko ñi nga xam ne fa ñuy liggéey ci nguur gi li ni mel njiitu jëwri ni Ousmane Sonko jël na dogal ngir dakkal ko ah, yow seetal fa jiite démb ab ndaje conseil interministériel jël ay dogal yu bari ci wàññi seeraay ak xaalis bi ñuy dépassé ci ñi nga xam ne fa ñuy liggéey ci administration bi 24 heures yéen kaay ne bokk na ca dogal ya fa wax ministre yeeg DG yeeg ñoom seen ku nekk ak buroom fay bëgg a am frigidaire machine bu muy defaree kafe te loolu mën ta nekk fay dakk léeg si ko yéen kaay dëggal ko na Ousmane Sonko fay calculer yaxanal xaalis bi nguur gi dundee ngir mën ko dugal ci jafe-jafe askan wi fa leen a wax ne benn firigo la ñuy def ak benn machine kafe benn micro-ondes fañ koy tàj ci couloir bi ñëpp bokk ko waaye bureau bu nekk ñu defar la loolu déedéet loolu fay cher te yàq la ñu ne déete waaye fa xaaye léegi bureau yi nga xam ne yëpp fa daan am télévision loolu fay dakk bureau DG daal directeur yi mën naa nekk yeneen bureau yi ah ah le soleil yéen kaay ne fa jublu nag ñu yaxanal wàllu courant bi nga xamante ne administration bi fañ koy jëfandikoo fukki dogal ak juróom-ñaar moom la njiiti jëwri ni jël lépp ngir wàññi facture bu cher bi ci courant bi nga xam ne état bi fa koy fay chaque weer te yu bëri mën naa ñàkk wal fajir yéen a kaay ne nguur gi kay sonko fa ñoo noppi ngir wàññi dépense xalal ju bari ji nga xam ne ñoom ñi liggéey ci nguur gi fañ koy jëfandikoo laas yéen a kaay ne dogal yu bees yi Ousmane Sonko jël njiiti jëwri ni mooy yaxanal wàllu courant leer laneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne réewum Sénégal fa ñaari déggoo ak réewum Maroc jëm ci wàllu transport dem bég dikk dëkk bi fañ ko bëgg ñoŋal indépendant yéen a moo ñu ko xamal si du quotidien moom fa xamal na njiiti réew mi Bassirou Diomaye Faye le 12 bu jotee su ko neexee mën naa tas assemblée nationale ndax conseil constitutionnel jox nañ ko ci ndigal wal fa jir yéen na tas au conseil ak tas conseil économique ba ca tas assemblée nationale mooy ne fi bennoo moom fa leen a xoj ah ndax foofu yëpp seeni militant ñoo fa nekk kaay na yi ñoom député ya fa waaye lu ñu bëri di xaar nag mooy taxawu Sénégal bu Khalifa Sall seen député ya ñoom lan la ñuy wote waaw wala déedéet Abba Mbaye bokk ca ñoom nee na ñun dogal bi ñu war a jël seetuñ ci bennoo seetuñ ci Pastef soxna ba député pur la moom fa wax ne ñun waa pur yi fa ñuy woteel li président Diomaye Faye bëgg ngir mu mën a mottali li mu digoon askan wi leer laneen lu leer ba yegg ca naññ ja mooy ne Bougane Gueye Dany defati na mëninam fa duggati attaqué ti Sonko ak Diomaye nguur gu bees gi waaye bii yoon fa caa yokk fàttali ñaawteef yi nga xam ne Macky Sall def na ko ci réew mi ak nguuram gi fa sulli seeni mbóot ñoom ñaar ñëpp le regard a kaay ne fa wax moom Bougane Gueye Dany ne sénégalais yi fa ñoo effacé benn bokk yaakaar seen mémoire yi maanaam seen bopp yi ndax fukki at ñaar yi ñu ree réew mi sénégalais yi fa sonnoon Macky Sall yoon tëddeewutoon njaaxaanaay yorin wu bon lañ yor nguur gi pasar pasar xalalu askan wi suñ démocratie fañ ko deltuloo ginnaaw ba pare lépp ay bor yu du xaat jeex ci ndodd sénégalais yi moom Macky milliards ak juróom-ñaar yi nga xam ne mooy fonds politique bi waaw loolu moom Ba ndax fay génn APR taxawal parti boppam am déet tey la ñuy defee lancement ba nag ak nañ ko dara doxalee ci loolu la ñuy càmbar toll nii waaye léegi moom yëf yi fa nañ le 9 9 bii ci lay Amadou Ba di lancer parti am ba ba tey l'observateur nag fa ñoo xamal ne tooxi ma ngay xeeñ ca ASER détournement cinq milliards yuñ fa njort keneen ku ñu topp ay milliards muy kër gi wàq pétrole bi ci Sénégal muy Woodside libération fa wax ne mook fisc bi le 5 fa la ñuy demaat tribunal fisc bi nag dossier bu dëgër këkk moom la nar a yóbbu enquête yi kaay moom fa ñoo xamal ne wàllu aada cosaan nguur gu bees gii daal fañ leen a néewal doole coppite gi ñu doon xaar ci wàllu aada cosaan ba léegi gisaguñ ko le quotidien yi ne kaay moom fa ñoo tax a ñëw si du quotidien moom fa ñëw ak jafe-jafe ya nga xam ne askan wa yeewee ca île bu Gorée fañ koy jànkuwante wàllu paj feebar fa ñuy évacuer dara daraa fa xamut ba tax ñu nga yuuxu wàllu bés bi yéen kaay moom fañoo xamal dossier mbëkk mi barsaak barsàq bi fa ñoo seetlu na ay jigéen fañ ciy bokk professeur Jibi Jaxate na leen xay wàllu mbëkk mii du ay affaire ragal de ak ñeme ñi koy def échec lañ gën a ragal docteur Saliba sociologue la nee na gis ngeen ragal nekkul ci góor ak jigéen mën ngaa gis jigéen joo xam ne fay dëgër fit ñeme dugg ci ndox mi dem même buy faatu sax yéen kaay fa nettali mbir bu daw yaram bu ci am fa xam ñaari ak rakk yu seen yaay ci seen boppam moo leen fayal xaalis ñu dugg ci gaal gi dem ndeysaan faatu ñàkk seen bakkan ci biir ndox mi sali lañ dëkkoon Dakar Times yéen moom fa di ñu wax jaar-jaar ak xamale woykat bi ñuy wax Youssou Ndour GP yéen a kaay moom fa xëy àddu ci wàllu ray gi ak ñi nga xam ne tuddi ko ñu nekk ay raykat yaaw seetal fa am benn xale bu jigéen boo xam ne fa xamoon far far wa wor ko bàyyi ko dem takk keneen mu mer nag nee na tuuti ko noonu ma jël ay bandi fay leen ngir ñu dammal ma tànki sama far ndax li ma def am keneen nettali na suñu rakk bu góor moom fay jëfandikoo dorog di mandi ñuy rey benn bés sax fa jéemoon a jam paaka suñ bàyyi tut mu rey ko indépendant yi ne kaay ne ñàkk kaaraange gi am ci réewum Sénégal gi rawatina Ndakaaru moo tax police bu Sénégal démb fa doon amal opération saytu kaaraange askan wi waaye ñeenti téeméer ak ñaar ci ay doomu aadama teg nañ leen ci loxo fañ leen a jàpp les ko yéen moom fa ñoo xamal ne fa benn moodu moodu bu nekkoon Pologne fa summi tubay ja jonkan tuur dugub ci barab boo xam ne tubaab lu tàng am waa ma ne li ñu xamoon moo yaay bu dee taxawee nara dal ci doomam ñaareel yaay ja fay tànn dee bàyyi doom ju dund léegi yow lu sax jëloo sa loxo bi dugal ko ci biir ndox mu tàng mi waaye ngay dugal sa loxo doom cofeelu yaay yërmande yaay mbëggeelu yaay ci doom yow fan la nekk ci yow may wax moodu moodu ba moom ngay dem di gannaaw kër ci mbedd mi ci réewu tubaab yii ñu delloo si la loolu Sénégal rek nga koy gis magam jëmm dox ci mbedd mi ba mu yàgg rek su mu saw wala wàccee tubooy jonkan te lu